waye kaddu sant yalla la it nag ndax fi ñu taxaw yéen ñep gis ngeen ko muy jumaa jo xamne defoon nañ ko fi tambali nañ ko fi depuis ay hat ko dalé ba nga continuer waat liggey bi waye néew ci katan kiko fi defoon nak suma yobone kiko fi rendon ndigalul tafsir alhaji tafsir ahmad bala rahmatullah alayhi nga xamne mo fi joge ci fan yi muy ko bëgg lu bax muy ilimanu jumaaju mag jele moo fi samp daara ji daara ji daaraam la jumaa ji jumaaxam la léegi nag ñun ñoo yore liggéey bi bëgg ci ndimbal ñun ak képp koo xam ne ay muhsinuuna la ko képp koo xam ne def kat lu baax la ñu ngi lay woo di la yaakaar pour nga yor ci sa loxo ci la la gërëm di la sant wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa lool ndax ñun ñoo ko tàmbale woon ci turu bay Tamsir Amath Ba mi fi jógee barki dem ñu mbokk doon comme ni ko sëñ bi waxee ah tam nañ nag boo na ni ñun néew nañ ci doole lool ñu ciy sàkku nag ndimbal képp xam ni maanaam mën nga ci yor sa loxo ndax liggéeyu néegu yàlla la boo xamante ni ndax daal ñun lott nañ ci lool bëgg nañ ko ci yor sa loxo pour jàpp lañu pour mu mën a mat ñu mën cee daje jaamu ci yàlla salaamaaleykum wa rahmatullah wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allah waaw maa yàlla ko moom jàkk yàlla ko